waaw xanaa ñu tëjee ko ak local yi nga xamante ni moom la ñu jëm surtout localité bi nga xam ni fa nga nekk est que jàpp nga ni euh, pare ngeen pour jël li nga xamante ni moom mooy. moom foofu moom ku muy bëreel nekku fa ña fa nekk ñëpp maa leen man ah, du ma seen morom. parce que Macky xam na ne du ma seen morom ndax démb rek Macky nelawul bu ñu yëgee ni candidat la ci déposé candidat ci liste quoi bokk gis-gis. Mm. convergence bokk gis-gis bi président Pape Diop jiite. ndax ku ne xam na ne amoon na coalition boo xam ni tëggoon nañ ko muy wàllu Sénégal. Mm-hmm. coalition wàllu Sénégal ba man ni maa joxe turu coalition wàllu Sénégal man maa ko joxe. ndax dama bokk commission boo xam ne c'est commission communication. parti yoo ñaar nit man ñu boole ma si ñan yebaloon kenn ku nekk parti bu ne ba nga ñëwee ña nga fa yebal ñoom ñu proposé mais tur bi ma joxe tur boobu lan accepté kon man maa jur doom ji. Mm-hmm. doom ji nag ba mu ko juree ba mu nekk taaru ba ngénte ko ba defee ne dañuy dem pour ñu war koo ay nit taxaw pour seen intérêt boobu pour ay doom jooju noonu kooku du ma moo waral bi nga xamante ni tey ànd bi. amoon na yéene mu baax sëñ Mountakha waxoon na si ñaanoon si màggal gi mais dafa may nit yoo xam ne dañoo taxaw seen ngir seen intérêt propre bopp ak seen parti te coalition dafay am ñoo xamante ni da koy def pour que yow nga jéem a gagné pour lu neex population bi tas am na waa PDS dem nañu ñoom ñeen war a àndal xaw ma ñun doon sax man xaw ma sax seen tur PDS rek laa si xam nee na dañuy gàdd seen yiw yi mais yiw bu maako moom moom wàllu bi nee dañuy gàdd wàllu mais wàllu moom sama sa sama wàllu la léegi nag au lieu que muy wàllu maanaam Sénégal gi ma waxoon wàllu Sénégal gi ma waxoon ñoom xam naa du ñu koy def wàllu PDS wala wàllu keneen waaye man wàllu gi moom man sama wàllu la léegi nag comme man dama daa wàllu Sénégal di wàllu askan wi tuubaa moo tax que maanaam ma jël siru wàllu bi dugal ko si bokk gis-gis ndax man rek maa doon nekk koo xam ni depuis ban falee ba tey maa ngi ci population bi di leen waxal heure bu ñu soxlaa Touba man la ñuy gis maa man la gis si mi man lañ gis si mbas mi man lañ gis li may défendre population boobu te man donc nekkum fa yeneen député yi bu ñu nekkee tey candidat soxla comme man yaakaar naa population Touba daan xam tey ki ñëw pour nax leen ak ki ñëw pour bëgg am li mu am pour gën a dolli da nga xam lu doon dimbale ndax fi ñu jëm du liste PDS en tant que PDS non Ablaye Wade du moom Ablaye Wade ñëwul tey ñëwul ëllëg du Ablaye Wade mooy ñëw fi naan fa leen wala fa département bi population ba fa dëkk ak ka leen ñor ak ka leen di jàppale loolu mooy li ci am solo te man fa ma dëkk la ma fa def jàppale ko population bi ñi ma àndal jàpp naa ne amu fa kenn koo xam ne def nga lu toll noonu moo tax ña nga xamante ne dañoo bokkoon si yeneen parti yëpp te frustré wu maa ngi leen tàllal loxo pour ñu ñëw man ci li nga xamante ne mooy boo ko gis-gis bi nga xamante ni tey la ñuy déposé suñu li nga xamante ne mooy suñu mandataires yi après incha allah pour que préparer si fii le 3 ñu déposé mboolem commune yi ak département bi nga xam naa ko jiite incha allah pour fexe concourir pour gagner incha allah. xam naa waxtaan wi ci affaire Abdoulaye Wade lañ koy tëjee. dégg nañu ni war na fi ñëw pour mën a jàppale ay ay ñoñom pour mën a jël euh, mairie de yow lan nga gis par rapport ak Abdoulaye Wade ñëw di daal campagne pour nekk maire de Dakar. Ah, man daa loolu la ma si wax mooy dama koy ñaaw di ko naqalu tey wax nag fii lu wér di ko di laas appel président Macky Sall Abdoulaye Wade institution la. Mm-hmm. ancien président de la république ñii bu ñu ko fayee di ko këll kale Abdoulaye Wade nañu ko bàyyi mu toog noppalu. nit boo yërëmee sa baay danga nga koy demal ay tool wala nga di ko yóbbu ndox. ñàkk jom mun a paase dem nga ba mënoo gañe fenn nga bëgg a wooy Ablaye Wade mu ñëw toog pour àndaat ak yow kooku d'accord ma si. Karim Wade tamit war naa xool ñi këll këlee baayam xam ne bu doon seen baay la duñ ko def ndax ku sa baay am 80 ans doo ko bàyyi muy dox leneen de. bis bu ñu indee Ablaye Wade fii muy campagne ba dal ko dinaa porte plainte PDS loolu moom na leen wér moom parce dañu ko war a yërëm dañu ko war sàmm dañu ko war a aar waaye di ko indi fii si naaj wu tàng wi naan ay simple conseil simple maire kooku si accepter lu ko dal dinaa porte plainte PDS parce que ñoom ñoo leen ko ñoom ñoo ko teg